bokk yi euh, département Koungheul poste santé yi nekk fii ci Koungheul mën nañuy def ouf de soulagement ku jub ku gis li ma tiim nii muy ay yu xam ne moom la ñu war di utiliser ci poste yi pour nit ñu fay ñëw di dugg ñi mën a xool seen mbir mu nekkoon lu jafe ci département bi gis nañ ne ñëpp def nañ leen war mais lépp lu ñu gën joxe lii bokk ci woon muy thermoflash nit ku baax ku xam ne tamit département Koungheul moo ko ital mu nekk le premier adjoint au vingt cinq thermoflash gis ngeen ko mu ngi nii euh, yu xam ne tey bu nekk rek tey boo doon ko wër di ko jënd ci marché mu jënd ci plus bi mu jógee loolu mu jënd ay gel jox ko tey poste bu nekk ci département Koungheul rek pare na pour yóbbu fa benn thermoflash mu ngi nii moom lañ ñëw dinañ ko woon mu nekk lu xam ne lu am solo bëggut ku xam nag xam ne moom bëggul di siiwal dara mais lii dafa nekk lu xam ne dafa am njëriñ parce tim lii la ñoon ragal nga toog fi nga toog ku ñëw andi ay signes yoo xam ne leerul la nga jël ci bagage yi xool ko muy thermoflash gis ngeen ko mu ngi ni mu waleen ko ci kees gi 28 moo fi nekk 25 thermoflash du moins moo fi nekk pour poste yi xam ne ñoo fi nekk amul benn poste bu nekk ci département Koungheul bis ni fekk suba da jot sa thermoflash mu ngi nii ñu andi ko léegi rek wàcce ko mais nag ñun comme dañuy topp information yi jaar fii pour jëlal euh, euh, moom bëggul daram di siw moo nekk pour jagleel ko euh, postes yi nekk ci ci département Koungheul pour jàppale leen ko lii tim acte bu ñu deful la rek ñëw jël ko pour wàll leen ko après nga mën ko xool muy euh, premier adjoint au maire bu lu am solo mooy jënd vingt cinq thermoflash pour jagleel ko askan bi fii nii ci département Koungheul kon donc ñu ngi koy gërëm di ko sant xam naa dañu gën a yaatal ak moom fekk ko fi mu nekk moment bi nekkul biir Koungheul mais comme commande bi jaar na war a dem ci poste yi rek ñu ñëw gaaw ñu jël ko pour wan ko askan bi mu ngi noonu ngeen di gis kon di ko ñaanal rek di wax askan bi yëpp ñu ñaanal ko parce que lii nii euh, bokk na ci fagaru bi xam ne ñu ngi koy xeex ci département Koungheul kaa accès gul fi ñaanuñ kaa am fi mais ci nii rek lañ mën def pour mën koo xeex ci département Koungheul ku nekk def sa loxo moom nag loxom ñëw na bu baax a baax a baax a baax kon ñu ngi koy gërëm di ko sant